avec le recul damay dama ci am lu ma lu ma lu ma naqari tuuti quoi. Mhm. xam nga pendant la période bi gaa yi doon gérer dossier Adji Sarr Ousmane Sonko boobu man dama nekk chef de greffe à Tivaouane xam nga quand tu chef de service. il une réserve qui s'impose à ah, c'est-à-dire que tu ne peux pas te prononcer sur certaines questions tu ne peux pas être chef de service dans la justice ba pare nga dem ci plateau de télévision di mm-hmm. prononcer wu ci yenn kii mais aujourd'hui on n'est plus chef de service de rien du tout mm-hmm. donc on a on reprend notre liberté de pouvoir nous prononcer en tant qu'acteur politique sur certaines questions qui concernent le pays notamment cette justice xamante ni mm-hmm. pendant des années dañoo bokk ci xeex pour taaral justice di défendre justice fu ñu toll ku attaqué justice ñu attaqué la mais aujourd'hui force est de reconnaître que ni justice bi di doxee dafa sooxee ci lu bëri procès Adji Sarr Ousmane Sonko bi euh, c'était une grosse c'était une grosse farce c'était une grosse farce malheureusement le président Ousmane Sonko aussi dañ ko acculé acculé ko acculé ko et peut-être que il n'a pas eu les conseils qu'il fallait mm-hmm. mu jël benn posture boo xamante nii ça a joué à sa défaveur mm-hmm. parce Euh, justice bi mu ngi sooxe sooxewul mais dañu am benn bët bu ñu àdduna di xoolee benn bët bu ñu waa Afrique di xoolee. Mm. ñu am ci yu bëri yoo xam ne ñu jàpp ni ñun ñoo ci jiitu. man ma jàpp nii Sénégal pour nga nekk fi euh, président de la République faaw nga moom nga jaar ci ay élections. Mm. ay élections mooy le seul moyen d'accéder au pouvoir. man bokkoon naa ci ñi nga xamante bi nii man tout le temps damay envoyé dama doon envoyé Ousmane ay message di ko wax. di ko conseil di ko wax ni ko demal répondre mhm. ni ko tribunal dañuy wax ni juge yi dañoo def dañoo mel ni dañoo mel ni dañoo mel ni mais man ko am na ci juge yoo xamante ni c'est des juges honnêtes te ñooñu ñoo gën a bëri mhm. chaque jour des centaines de dossiers la ay juges di traité en tout conscience ak ak ak seen conscience juge yi nga xamante ni ñoom ñooy wax le droit ak seen aqulaay la moo ëpp fuuf mhm. juge yi nga xamante ni dans les dossiers hypermédiatisé la ñuy mais le problème mooy moom ce qu'il dénonce mooy c'est une minorité euh, la jox yenn responsabilités yi ba souvent euh, une minorité pourrie ñoom ñooy occupé euh, affaires yi nga xam ne ñoom ñoo intéressé les hommes politiques yu mel ne moom non su su su demoon taxaw man ak carrière mhm. ak les réponses qu'il yu mu doon yu doon apporté moi je crois que si su fekkoon ni demoon na ci procès bi les choses ne se seraient pas passées comme ils se sont passées mhm. parce que déjà bu juge bi amul ci lu mu sukkandiku bu demoon taxaw mhm. bu demoon taxaw Ousmane Sonko ak carrure ak charisme ak posture bu demoon taxaw mbir mi ni mu demee ah, nii. du ko demee.